daanaka bëreetul waxtaan bi du ma ci yàgg nuyoo bi moom <laughs> le talentueux journaliste nuyu naa la ma bàyyi la uh-huh. uh, uh, di nuyu Moussa ak doyen Mademba Ramata di nuyu ak ziar Sénégal yi nga xam ne uh, ñu ngi seetaan émission réveil waaye itam di nuyu ak dalal suñu gan Mouhamed Ayib Daffé nekk député ci assemblée national bokk ci parti bii di ex Pastef ñu ngi lay nuyu di lay dalal plateau réveil waaw maa ngi leen di fay di nuyu waa Walfadjri yëpp mhm. euh, di euh, rafetlu euh, <coughs> signal bu ñu leen delloowaat ak licence bu ñu leen delloowaat parce que bu mu fi mujj yaakaar naa sorti laa ñëwoon fekk boobu yéen a ngi woon ci jafe-jafe mhm. donc di wax nii rek loolu en tout cas lu waroon am la parce que c'était un acte illégal c'était un acte liberticide donc euh, condamné woon nañ ko donc suñ ko delloo delloowaatee je je dirais que justice est rendue rek. voilà di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di nuyu suñu grand bi Demba mata merci d'accord euh, dañuy euh, jël rek jukki xam naa temps bi bëriwul trop waaye dañuy jukki quelques points ci euh, actualité ñu daal di ci waxtaanee mu bokk ci nag li nga xam ne ñu ngi koy rumataat muy dialogue boo xam ne xëy na mu ngi dox diggante njiitu réew mi mag Macky Sall ak Ousmane Sonko jaaree ci Alioune ak ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa ndax xabaar gi ni mel yegoon ngeen ko ndax da ngeen koy degal wala da ngeen koy dàq. waaw bon dégg nañ jaloog dialogue ci gémminu Macky Sall nañ ko déggee euh, yaakaar naa ni am na ñoo xam ne tam euh, mun naa ne euh, ñoom yàgg nañ ko wax ay dialogue ku mel ni Alioune Tine ku mel ni Goudiaby Atepa mais ñun de notre côté moom amuñu si benn information bu dul si ñooñ si ñooñ niñ ko déggee ak si presse bi nañ ko gisee je pense que presse bi ko titré ñuy suivre presse bi comme ñëpp rek mais di rappeler nii rek. que ñun suñu priorité actuellement mooy xeex le report de l'élection donc le principal débat mooy fexe ñu xeex la prolongation du mandat du président de la République te di rappeler simplement que acte yëpp ñu posé lu factuel laa lay wax waxuma loo xam ne ci ay wax la rek mais loo xam ne dañ ko teg bind ko wala ñu défendre ko composition position acte yëpp ñu posé euh, ci assemblée nationale voté contre la commission d'enquête parlementaire ce également proposition de loi constitutionnelle bu PDS dugal voté contre am taxawaay boo xam ne ñëpp gis nañ ko ñëpp gis nañu député Yewwi Askan bi parce que Yewwi Askan Wi yëpp a taxawoon loolu yëpp sous sous directive du président Ousmane Sonko. d'accord pour ñu xeex loolu déposer recours yi au niveau du conseil constitutionnel et de la cour suprême ñuy xaar nag seeni réponse pour annuler loi boobu pour que rapport boobu mu bañ a nekk. leneen li tamit mooy ci euh, suñu mot d'ordre bu ñu jox suñu militants yi mooy nañu dem campagne électorale parce que loi bi comme que promulgué guñ ko entré gul en vigueur comme am nañu droit daf campagne électorale. ndax te si loolu campagne électorale yooyu ñuy def nag ñoo ngi leen di si jàpp. dégg naa ñu bëri ñuy wax déggoo kenn seen militant ñu jàpp leen. militant ñuy jàpp waaw coalition Diomaye président la. démb rek nga dégg Njaga Njaay ba ci Mboro di suñu allier jàpp nañ ko euh, suñu coordonnateur départemental Mbour jàppoon nañ ko am na ñu jàppoon Bignona am na ñu jàppoon Kaolack am na ñu jàppoon euh, au niveau de Saint-Louis ak feneen ak feneen ak feneen ak Mbour donc loolu mooy lu factuel loolu mooy réalité bu nekk sur le terrain waaw mais tey gis bu ñu xëyee dégg Alioune ku nekk xam na ne euh, kilifa la donc Pierre Goudiaby Atepa ñu yëkkati kàddu yu ni mel bu ñu jàkkaarloo ak yow aussi ñu gis également position bi nga am ci euh, partie bi di euh, PASTEF dina jaadu ñu laaj leen. ba xam waaye c'est <laughs> damay ñëwaat damay damay ñëwaat ndax moom. Hmm. dem nañu plus loin parce que Alioune Tine nee na donc fii ak ay fan yu new mën nañu gis Ousmane Sonko ñu daal di koy libérer est-ce que lu mel noonu mën na xew te yéen vous pas ngeen bañ waaw mais xam nga ni Ousmane Sonko Ousmane Sonko kam moo ko dugal ci kaso bi dugalul boppam ci kaso bi Ousmane Sonko ne pas demandeur buñ koy dugal ci kaso bi laajuñu ko suñu tëbee ba ci yàgg ñu ne dañ koy libéré <laughs> ñu ñan ñooy mun a libéré kuy libéré kay c'est le juge d'instruction su fekkee nag le juge d'instruction comme lu ñu doon wax ni répond à des ordres wala répond à des instructions ñooñ nañu war a laajte parce que pour man question yu ñuy laaj ah ñuy libéré nañ ñu war a laaj. mais ndax mais non détenu du libéré boppam d' accord nga. d' accord nga ak man. juge d' instruction moo koy libéré. su fekkee ni mu ngeen am accès si juge d' instruction wala au moins si ministre de la justice ne ko ah Ousmane Sonko doit être dans quelques jours loo ci xalaat. mais man munuma la ci tontu ci loolu. mais yéen ndax xam ngeen xibaar xibaar boobu ndax am ngeen ko wala déet. la non aw mooy xibaar déggoo lu mu la wax je vous ai répondu tout à laa ko déggee Alioune Tine suivre naa ko dégg naa ko ci presse lu mu wax nag moom la engagé. Euh, dégguma ko sur une voie officielle. c'est une voie officieuse. mais euh, man de côté euh, dégguma dara loo xam ne Ousmane Sonko wax nañu ko ci dialogue bi dégguma dara loo xam ne suñu candidat Bassirou Diomaye Faye wax nañu ko ci dialogue bi. lu ñu wax par contre priorité bi mooy xeex contre le report ak la prolongation du mandat président te lool posé nañu ay actes yu factuels ay actes matériels te wax naa ko ñu bëri yi ngi coow les radicalisés de la vingt cinquième heure di naan dañuy joxe ay leçons seen militants yi jàpp ñu leen suñu militants yi comme la son jomaay président dañuy jàpp su comme nag xeex bi ñëpp a ko bokk vingt candidats yëpp a ko bokk sénégalais yëpp a ko bokk bëgg naa ñëpp dugal ci seen loxo ñu bàyyi wax ju bëri ji. d'accord waaw parce que loolooy priorité bi. ban gis-gis nga am nag ci euh, loi d'amnistie bi nga xam ne aussi annoncé nañ ko ne euh, dañu ko voté pour ñu mën a libérer les détenus politiques de deux mille vingt et un jusqu'à deux mille vingt trois ban gis-gis nga. am ci benn gis-gis parce que loi d'amnistie boo xam ne ci presse nañ ko gisee man député assemblée nationale la mënuma cee prononcé wu. Euh, xam nga loi day fek nga téye ko wala nga téye projet de loi. ah wala nga dégg ni jàll na conseil des ministres boobu suñ ko déggee su boobaa nañ ci mën a wax mais loo xam ne yaa a rien d'officiel ci presse bi tamit mënumaa toog fii di def euh, revue de presse <laughs> donc <laughs> loolu laa ko mën a tuddee parce que revue sinon revue de presse laay def te journalistes yi soo leen di déglu sax parfois soo lire revue de presse da ngay gis kii wax lii keneen wax leneen keneen noo dañ ko proposé keneen noo dañ ko exilé keneen et cetera donc loolu xam nga euh, ñoom seen liggéey nañuy def mënu ma ne leen de pale vais di le dire de demander de euh, wax leen nu ñuy defee seen liggéey. mais yaakaar naa ni ci presse bi laa ko gisee. donc loolu mënu cee sore munuma cee commenter loo xam ne. vraiment ay euh, information yu ma for ci presse bi la rek. d'accord alors lii moom lu officiel la njiitu réew yi woon Abdou Diouf ak abdulaay Wade def nañu ab communiqué euh, ngir euh, woo askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo sekk géewu politique bi ngir ñu dem bokk ci dialogue bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall mu ngi koy sàkku ban gis-gis nga am ci communiqué gi ni mel. waaw gis-gis bu ma am ci communiqué bi seen communiqué bi bon. ñoo ngi woote jàmm ñoo ngi woote dal loolu lu baax la euh, seen cër la parce que ay anciens chefs d'état nañu yoroon nañu fi institution joué nañu un rôle bu rëy ci la vie politique du Sénégal notamment entre euh, abdu Diouf diggante anne soixante-dix yi ba deux mille Ablaye Wade également jusqu'en 2012 ba léegi moo jiite parti om parti démocratique sénégalais ñuy fàttaliku nag parti nag mu ñu dugal ci situation bu ñu nekk nii tam. loolu tamit <laughs> parti démocratique sénégalais en parti ak Benno Bokk Yaakaar ñoo ñu dugal ci situation bi parce que ñoo ñu indil commission d'enquête parlementaire pare gu ñu ci commission d'enquête parlementaire ñu indil ñu proposition de loi constitutionnelle wax ñu rapport. te si waaw exercé seen droit aussi. waaw non commission d'enquête parlementaire dama jàpp ne loi xëy na moo leen ko may. commission d'enquête parlementaire bëgg bu ñu ko tegee liggéeyul dara. te dégg naa tey rek seen benn euh, confrère. dinaan ni euh, ministre de la justice transmettre na euh, président assemblée nationale je pense que euh, procureur dafay ubbi information judiciaire donc commission d'enquête parlementaire bi day arrêté donc ñun ay tappaleeg caaxaan nañ ko gisee woon on a voté contre waaw parce que bu ñu xoolee exposé des motifs yi tuumal nañ fa ay nit tuumal nañ fa sax même le candidat de Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar nu ñu doon défendre commission d'enquête parlementaire boobu dañu gis ni zèle bu ñu ci doon ak yàqamti bu ñu ci yàqamti woon commission d' enquête parlementaire boobu jàll fekk am noon na ay dizaine de commission d' enquête parlementaire yoo xam ne fekk na ko fa yooyu kenn jàllalewu ko au niveau du bureau donc ñun dañu doon ne ce zèle là est suspect ce soutien là est suspect donc moo tax looloo teyoon suñu xel waxoon nañ ko nag suñu xaritu PDS yi parce que ñoo nekkoon ci opposition bi te bu ñuy ñëw assemblée nationale pratiquement ñoo bokkoon ay liste waxoon nañ leen ko nee lu ñu jaaxal nag seen commission d'enquête parlementaire bi mooy ñun commission d'enquête parlementaire yi ñu fi jotoon indi yëpp pour leeral bii daal moo si jàll. donc euh, am na loo xam ne day tey ñu xel proposition de loi boo xam ne yëpp ñu indi woon tamit bon bii rek moo ci jàll depuis législature bi nekk législature benn commission d'enquête parlementaire moo jàll boobu la. depuis législature bi nekk législature benn proposition de loi jàll boobu te ñu ngi ko defee ci ay délais yoo xam ne maanaam ils ont battu tous les records en termes de procédure parlementaire loo xam ne kenn mësu ko gis ay 48 heures 72 heures donc euh, loolu laa wax am nañ ci responsabilité hmm. seen responsabilité kenn mënu leen ci génne si crise bii ñuy dund parce que dañu ne woon il y avait une crise prétendue crise institutionnelle qui n'existait pas parce que assemblée nationale ak conseil constitutionnel mais bokkuñu ay prérogatives bay am crise institutionnelle et il y des gens qui Euh, ñoo xam ne ñoom ñoo accuser ay juge bu ñu leen accuser indiwuñu preuve indiwuñu indice concordant indiwul ñu dara lu dul ay këyit exposer des motifs bind si lu leen neex ba tey ñu ne commission d'enquête parlementaire boobu arrêté donc ma ne euh, pour répondre à ah. question lu ñu def ñoom euh, ils sont dans leur rôle maintenant pour man dafa xaw a tardif xaw naa yéex parce que dëkk bi quand mu ngi dund ay jafe-jafe depuis 2021 Euh, événement yi mujjee euh, manifestation yi mujjee on parle de trois mois mais diggante deux mille vingt et euh, tey ñaata morts moo am y a ñaata plus de soixante-dix morts am na fi am na ay dégâts matériels yu rëy donc qu'est-ce qui changé entre-temps peut-être lu lu ci lu ci gën a lu ci lu ci graaw mooy le fait qu'on ait chamboulé le calendrier électoral donc ñoom dañu pour man dañoo waroon teel a impliqué wu ci dénouement crise bi yaakaar naa ne suñ cee impliqué woon suñu doon def de la prévention de la crise peut-être du ñu yegg fii. waaw mais doo xaar nag ba euh, kii bi day xaw a nekk un peu médecin après la mort. te soo liiree tamit lu communiqué dugg ci ba ci biir dafa mel ni ñoom pratiquement ñoom lu. Euh, Benno Bokk Yaakaar. Euh, Benno Bokk Yaakaar ak PDS lu ñu entériné ñoom dañ ko validé. moo yóbbu élection bi bala 15 décembre te ñun ànduñu si on est contre donc euh, loolu tamit euh, euh, su fekkee ni ñoom dañu bëgg a jouer un rôle de sage un rôle de médiateur yaakaar naa ni ils doivent euh, euh, à l'autre camp euh, que également ñu respecter le calendrier électoral ñu rétablir le calendrier républicain je pense que foofu tamit seen rôle la man du mu leen daf la leçon du mu leen sermonner mais je pense que bon globalement daf nañ lu ñu war a def mais tardivement ak tamit euh, xaw nañoo indulgent un peu envers euh, que ce soit Ablaye Wade envers ses militants et ses responsables que ce soit euh, Abdou Diouf envers Macky Eh, d' accord euh, léegi noo gisee euh, wax nga ne yéen euh, yéen a ngi wëyal di amal seen campagne ngir jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne ba ëttuwul dinañu ko reporter wala boog wax nañu sax dañ koy reporter officiellement noo gisee taxawaayu opposition ci xeex bi nga xamante ni xëy na yéen a ngi koy xeex ngir mën a amal élection présidentielle le 25 février 2024. waaw xeex bi moom yaakaar naa ni doonatul xeexu opposition xeexu ñëpp la parce que suñu nee dàq nañu élection. yaakaar naa ni ce n'est plus le problème de Ousmane Sonko ce n'est plus le problème de Diomaye Faye ce n'est plus le problème de coalition telle wala coalition telle parce que élection moment la ba nga xam ne moom nañu jox dans une dans une démocratie risque représentative moment bu ñu jox askan wi mu tànn ñu koy jiite te élection suñu république suñu système politique suñu régime politique élection bu ci ëpp solo mooy élection présidentielle donc le fait que ñu dàq ko euh, c'est quelque chose quand même lu garaaw la violé nañu constitution bi on parle de coup d'état on parle de putsch euh, civil donc loolu du lu ndaw donc ñëpp a war a jóg taxaw bañ ko ñu nekk ci les schémas classiques là euh, Macky Sall Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade et cetera suñ koy def rek ñoo ngi nax suñu bopp parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu c'est l'avenir de l'état de droit c'est l'avenir de la démocratie qui est ñu nag yàgg nañ ko euh, euh, yaakaar naa ni président Ousmane Sonko yàgg na ko alerte yàgg na ci alerte te buñ ko doon alerte nit ñi jàppoon nañu wëy euh, kii lu muy def nii c'est de l'opposition radicale mais lu ñu doon wax yëpp gis nañ ko tey gis nañ ko tey parce que lu ñu tax ñu dàq élection yi lu dul ñoom dem nañu euh, Macky Sall daf na ses deux mandats il ne peut plus en représenter à un troisième mandat article 27 jéem naa forcé affaire ba jàllul peuple bi bañ léegi euh, mu ne day organiser élection tout en écartant le chef de l'opposition te bu mu koy def tamit ñu bëree ngi toog di seetaan yaakaar ni luy dal ci Ousmane Sonko ma Macky Sall su si paree jeex na ñoom dañuy dem élection tranquillement mais quand il a constaté que mu il n'a pas réussi à éliminer Pastef du jeu électoral parce que Bassirou Diomaye Faye candidature am moo leen tiital donc foo la jëlee décision dàq élection yi donc su fekkee ni moment boo xam ne un opposant am na ay jafe-jafe ñëpp jóg jàppale ko parce que du ñu xool ni kii intérêt opposant bii la mais c'est l'intérêt de la démocratie c'est l'intérêt de l'état de droit du ñu yegg fii donc je pense que c'est euh, du problème mu opposition du problème mu problème mu peuple sénégalais bi yëpp la dans toutes bàyyi wu ñu kenn. ñoom ñoo war a jóg parce que marche bu ñu programmé cet après-midi mais ñu ko programmé c'est pas la c'est pas l'opposition c'est la société civile sax laa bëggoon ñëw suñu élection euh, bu Ndakaaru jël na dogal interdire euh, marche silencieuse boobu nga xam ne aar suñu élection euh, naroon nañ ko amal tey ban gis-gis nga am ci doxalin googule waaw mais loolu nañ fi tàmm <laughs> yaakaar naa ne du lu bees c'est devenu une tradition ou une coutume d'interdire toutes les manifestations yoo xam ne pratiquement ñun euh, wax nañ ko ministre de l'intérieur parce que ministre de l'intérieur ñëw na assemblée nationale mu ne wey les libertés de réunion il y a quatre-vingt-dix pour cent des manifestations ils sont autorisés ma ne mais yéen yan manifestation ngeen di autorisé xanaa mariage la ngénte yi ak tànn biir yi non c'est-à-dire am na loo xam ne mais ñun suñu investiture suñu cérémonie d'investiture ñaata yoon nañ ko interdire fii am na boo xam ne ñu ne stade Amadou Barry dañ koy dafe ñu ne non non leen ko fi dafe am na beneen boo xam ne ñu ne dañ koy dafee eh, meeting ak APES ñu ne doo leen ko dafee ñu dem Fun City ñu ne non non gendarmerie ñëw mu ne laaj ñu autorisation dans un lieu privé donc violation droit yeeg liberté yi yaakaar naa ni depuis eh, second mandat Macky Sall bi tar na ñun en tout cas deux ñun Pastef nuñ koy lu ñu si maanaam eh, persécution bu ñu doon wax ak acharnement nag nit ñi ñoo ngi koy soog gis donc lu may wax du lu bees maintenant nag c'est aux acteurs. dans toutes leurs composante et au peuple sénégalais ñu jël seen responsabilité je pense que am na loo xam ne tamit euh, il faut que nit ñi taxaw mais su fekkee ni euh, dañu bëgg a nekk euh, di seetaan su fekkee ni dañu bëgg a nekk maanaam toujours benn posture boo xam ne dañuy jàpp ni yow soo kaasee wala soo taxawee di xeex ses droits on te considère comme quelqu'un de radical on te considère comme quelqu'un de violent mais démocratie bi du avancer état de droit bi du dem fenn donc état de droit bi ak démocratie bi ñoo ko war a défendre lu ñu def noonu du dëgg du yoon dañu war a bàyyi nit ñi ñu manifester ñu encadrer les manifestations prétexte bu préfet Dakar joxe ce sont des prétextes fallacieux mais bettu ñu puisque préfet bi moom il ne reçoit des ordres que du ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur il reçoit des ordres donc mbir mi fa la nekk. wax nga dañu war a jël euh, seen euh, ay responsabilité le peuple euh, dañu war a jël seen responsabilité responsabilité yooyu loo ciy déggee maanaam brave interdiction yi dem manifester wala. non xam nga su ma la nee jël seen responsabilité mooy taxawaay bu ñu war a am ñu ñëpp war a am mooy ni tey les gens ont des droits et des libertés droits et libertés yooyu nag bu ñu seetaan ñu koy salfaañee ñu leen neexee autorité yoo xam ne moom nañ ko dénk. nga xam ne ñoom dañu war a appliquer la réglementation parce que xam na tey soo jëlee liberté de réunion mais am na lu ñu ci wax yow soo naree interdire manifestation soo prétexté ne menace de trouble à l'ordre public da nga war a ni wane ni yow trouble à menace de trouble à l'ordre public yow parce que ñoom ñoo yor force de défense et de sécurité trouble à l'ordre public kam moo koy prévenir wala su amee kam mooy fexe ba mu euh, du déborde mais force de défense sécurité yoo xam ne sénégalais yi ñoo leen di fay donc autant moom ñoo ngi jël di leen utiliser di leen teg ci carrefour yeeg di leen teg ci rond point yeeg di leen teg fu nekk président de la république suy génn nga gis ñu jalonné fu nekk autant tey sénégalais yi dans leur écrasante majorité suñu bëggee am volonté ne dañuy manifester dañ leen war a encadrer maintenant nag euh, le fait que dañuy braver interdiction ñun duñu initiateur yi aar suñu élection mooy initiateur nen nañ dinañ def point de presse nañu xool lan nañuy lan nañuy décider. parce que sax ñoom wax nañu que ne ay euh, problème de mobilité dañuy bañ euh, disons ñu entraver à la libre circulation. Euh, ñan ñoo wax loolu bon ci ci. décision bi nga xam ne préfet jël na ko bu fekkee juumuma daa mel ni loolu bokk na ci li mu motiver décision mais loolu ñu yàgg motiver décision ñun wax nañu ñun député yi toog nañu ñu xañ ñu suñu droit ñu ne dañuy sitin devant la porte de l'Assemblée nationale ñu ne entrave a la libre circulation buntu Assemblée nationale kan ngay bloqué foofu donc xam nga affaire mbir yi fu mu yegg dem nañ ba lu ñu ragal mooy ñu gis une mobilisation pacifique une mobilisation massive du peuple sénégalais donc moo tax ñuy interdire manifestation yi lu leen gënal mooy taal pëne yeeg euh, toj yeeg sànni yeeg ah xeer yi pour wane ni nit ñi ñoo xam ne ñoom les sénégalais nga xam ne dans leur écrasante majorité mais ñooñu sénégalais yi ils ne sont pas violents donc euh, euh, yooyu su amee ñu bëri du ñu génn mais tey soo nee manifestation pacifique mais ñëppay génn donc moo démonstration de force boobu nañu ragal pour wane pour peuple bi sénégalais wane ni àndul ak lu xew moo tax ñuy interdire amul beneen justification lu ñuy wax nii yëpp yaakaar naa ne ay tappale la ak ay caaxaan. waaw waaw man euh, ay tafe ce qui mooy cest à euh, maanaam posture opposition bi parce que gis nañ ni bari ngeen ñii am nañ conviction tandis que d'autres mooy loolu alors que est-ce que c'est pas maintenant yéen opposition bi ngeen def bloc. que ngeen di am ennemi ay querelle interne ci biir opposition bi ngeen xam ni benn ennemi ngeen am muy le chef de l'État à ce que ngeen mara maanaam ngeen poussé ko ba am yéen di ngeen bëgg est-ce qu'il n'est pas temps par exemple yéen opposition bi ngeen def. waaw suudewu non euh, opposition bi yaakaar naa ni euh, contradiction mënul ñàkk mais contradiction dafa am contradiction principal ak ay contradiction secondaire contradiction principale bi yaakaar naa ni wax naa ko priorité bi mooy combat contre le report ak prolongation du mandat du président de la république mooy violation article 27 ak sa article santroit ñun de à notre niveau ñun opposition parlementaire bi lu ñu waroon def yëpp def nañ bu ñu toogee yeggee assemblée nationale am na ñoo xam ne ñu mel ni waa taxaw amoon nañu ay jafe-jafe mais euh, teewul xeex bi mu mu jotee dañ ko xeex ensemble donc euh, yeneen ca yeneen cadre yi nga xam ne tey ay F24 ñoo ngi fa opposition bi ñoo ngi fa on se retrouve Euh, waa aar suñu élection suñu wootee mais ñun ñëpp dañuy ñëw ñun tamit euh, y a le collectif des candidats yu nga xam ne euh, dernièrement déposé nañu au niveau de la Cour suprême un recours collectif donc y des initiatives yoo xam ne ñoo ngi koy jël maintenant nag mënoo enterrer problème yi du yëpp mais problème bi du problème mu opposition encore une fois c'est le problème du peuple sénégalais dans toutes ses composantes ku jàpp ne nag problème mu opposition la ñu yegg ni yaakaar naa ni Euh, pour man euh, enjeu bi dépassé na foofu. d'accord euh, que on parlait d'élection simplement ah mënoon nañu ne c'est le problème de majorité opposition ak candidat mais léegi puisque république bi moo nekk en danger état de droit bi moo nekk en danger démocratie bi moo nekk en danger. mais si ñëpp la ñëpp ay ressentir impact bi yéen euh, vous êtes les, les principaux impactés bokk leen opposition pour d'accord mais dañoo dañoo reti retrait définitif de votre licence loolu mais c'est extraordinaire. mesure bu mel noonu nga xam xalaat ko Sénégal kenn mësul xalaat ni Sénégal dañ toog benn ministre boo xam ne kenn xamul fu mu jàngee ak fu diplôme kenn xamul fan la ko jëlee naan day naan ay retrait définitif de licence ci ay caaxaan. ci manifestation yi également gis nañu force de défense et de sécurité yi euh, taxawaay bu ñu ciy am di réprimer souvent euh, dund nañ ko fii vendredi lacrymogène yi ba ci biir euh, disons bureau yi ban gis-gis ngeen am ci situation boobu nga xamante à chaque fois bu manifestation amee dangay gis ne force de l'ordre yi dañuy user vraiment dañuy utiliser violence boo xamante ni daal lu si yàlla xam doy na rax ci dolli journalistes yi sax ñu ngi commencé di leen di bunu ci seen wàllu liggéey waaw bon loolu moom yaakaar naa ni euh, ñun daf nañ ci euh, ay mémorandum euh, depuis deux mille vingt et répression yu fi jot a am morts yi blessés yi ak ñoo xam ne vraiment subir nañu ay exactions de toutes sortes sans compter les prisonniers politiques daf ci plusieurs fois mémorandum adressé ko à la presse adressé ko euh, à la communauté internationale demander ñu ouvrir enquête parce que gouvernement bi je me rappelle en 2021 à travers di Kaba ne woon nañ ne ñu ouvrir commission d'enquête indépendante mais bu ñu demee ba ci biir ñu génnaat ci euh, commission d'enquête boobu kenn mësu kaa gis également ñu ne woy procureur bi euh, saisir nañ ko moo ciy liggéey procureur bi déggaguñ ko mu dégg kenn koo xam ne ci force de défense de sécurité yi la bokk euh, wala ci en tout cas ñoo xam ne ñoom ñooy boom nit ñi Euh, muy nekk mooy ñu ñuy woowee nervi ak ñooñu déglu kenn déglu kenn ñu euh, dégluñ ci kenn en tout cas enquête bi damul fenn donc looloo indi woon yaakaar naa ni ñu dem au niveau de la CPI déposer fa un dossier parce que su su fekkee ni au niveau national euh, buntu yëpp tëju nañu peut-être alternative boobu moo ñu dese woon pour que quand problème boobu ñu régler ko parce que euh, maintien de l'ordre dafa am ay principe dafa am doctrine maintien de l'ordre du pour rey nit maintien de du pour lor nit maintien de l'ordre c'est pour ramener la calme parce que trouble mënul ñàkk ci réew souvent mécontentement dina am mais te ñoom causes yi lu si ëpp ñoom ñoo koy indi parce que c'est ay mesures yoo xam ne population bi àndu ci population bi wàcce pour dénoncer ko may ñu leen ñu dénoncer ko de manière pacifique parce que marche boo wala manifestation boo kii ñu ñu interdire ko donc ñoom lu ñu leen di offrir du lu lenn luy répression donc loolu ñoo ngi koy dénoncé te ñoo ngi ñaan ñu ubbi ay enquêtes sanctionner les coupables et les auteurs une toute dernière question daa mel ni temps bi kii na fi ma mhm. commencé fa laay jeexale wax nga ne amuloo benn information bu officielle en tout cas bu jógee ci euh, une voix officielle buy wane ne Ousmane Sonko mu ngi nekk ci logique ku gi ak le pouvoir euh, mais bu ñu poser hypothèse si jamais moom mu accepté woon euh, gi ak njiitu réew mi Macky Sall est-ce que Ayib Daffé serait en phase avec Ousmane Sonko non xam nga Ousmane Sonko yu mu waxoon leer na je pense sur le dialogue nee na par sur le principe il n'est pas contre le jalo waxoon na ko je pense que video yi ñoo ngi fii nit ñi mun nañ ko reprendre dégluwaat ko mais lu mu bañoon mooy dialoguer avec le pistolet sur la tempe ou le couteau sur la gorge loolu moom du ko nangu euh, fu ñuy wax ak yow ni ah ñun Pastef dañoo dissoudre suñu président moo ngi prison suñu secretaire général moo ngi prison am naa ñaari secrétaire général adjoint Toussaint Manga Mouhamani Kaba ñoo ngi prison suñuy cadre ñu mel ni Fadilou Keita suñu maire yi ñoo ngi ci kaso yi ak ñeneen ak ñeneen des milliers de prisonniers politiques ñii ñoo ngi ci contrôle judiciaire ñii ñoo ngi ci liberté provisoire suñu responsable des jeunes il en exil bu ñu leen libeeree ñëpp. donc ma ne euh, si loolu nañu nekk nii xam nga loolu moo factuel. loolu laa la wax avec des si nag on peut refaire le monde. <laughs> waaw donc loolu moom seen liggéey la en tant que journaliste dama leen di ko nangul. Mm-hmm. voilà merci beaucoup à tout ah. ah. ah. <laughs> bi fin bi la waxtaan bi gën a ci la la gën a dugg daal. waaw baax na bon. Euh, dinañ ko ko nangul comme nee na amagul information bu officielle xëy na mel na ni ah, temps bi xoj nañu waaw euh, temps bi xoj nañu bindu dañuy euh, yemale Euh, xëy na da nga am question. non non aw ma question mooy lu mu mujjee rek. Ah. mooy seen waa moo ko doon wax on ne subit jamais de chantage on ne négociera jamais un pistolet sur la tempe. <laughs> Ah, d'accord mooy li ko soulevé ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf si sa teewaay ci plateau bi euh, doyen Mademba Ramata jaajëfal naa la bu baax a baax euh, Moussa Sène. le talentueux journaliste Xoxan donc euh, kon jaajëfal naa la yow it jaajëfal également suñuy euh, technicien il s'agit de bintu Fall ak euh, Serigne Aliou Keita Tata Diaratou Penda Diallo Guèye tonton Pierson maa ngi leen di jaajëfal ci gunge bi également di jox daje incha allah demain suñu téléspectateur internaute ak auditeur yu 99 point 0 jàngeen jëf